jërëjëf bokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di sant yàlla ci ni ngeen ni toppee seen émission mag bi di Dakar Buzz social tey ñu ngi fii ci Diamaguène euh, Diacksao li ñu fi nag mooy social bi ñu ngi si benn xarit moo ñu naan ko Ndoye Laxas waaye di ci nuyu Super Étoile le grand champion nekk fee ci Amérique Super Étoile di mbër nekkoon fii ci làmb ji te yàlla def mu dem Amérique Super Étoile tey dañ na ci lu ne pour ma jël Ndoye Laxas mi. di ñaan yàlla defal la jàmm ak bépp sénégalais yi nekk foofu ci Amérique mbëru làmb yi di nuy Dakar ba social an taxaw ñu wéré di ñoom seen jiili Njaay sëñ Mamour sëñ Xaadim Sarr soxna nga suma borom daaru bàyyi Saliou bàyyi Até di nuy waa Hello di nuy ñëpp di ñëpp jàmm di ñaan yàlla def jàmm ci réew def sutura di nuy suma rakk Mouhamed Amar di ko ñaanal jàmm ak sutura ak tawféex di nuy Xaadim Amar di nuy ñëpp di ñaan yàlla def jàmm ba bëgg a ndooy lii ko dal lan la ak kañ muy lu doy waar loo xam daal mi ngi koy dund muy ñu gën ko xam ci ndooy laxas tey mu bokk laa tey euh, lii ko daal kañ la ak nan la. ndooy salaamaaleykum. maa sa tur dëggantaan la. ndooy laxas tam newoon ci làmba ji ñu ko ndo ndooy laxas. ndooy da nga amoon licence di ba waaw da nga doon bëre nekkoon écurie Lamsar. jot nga am ñaata combat. jot naa bëre sept combat arène euh, six six victoire benn benn défaite. d'accord léegi kañ nga bàyyi làmb. Diène Nabodé yàlla def na Diène Nabodé sept combats arrêtés six six sama deuxième combat la daanu Balla Balla Gaye Balla Gaye tey seen mag euh, euh, Gamb Gueye Gamb Gueye moom moom moom moom moom njëkk daan sama sama ah, moom boo ko toppee nekk xale euh, da ngay da ngay dokk entraînement yu métti yi amoo récupération léegi moo ne yàlla def may may deret di saigné waaw di animé quoi sama deret di jeex may may maigrir après mënatuma bëri quoi affaire yi jàpp ma euh, sama deret di wàcc may dugg si opital yi hôpital yi bëri dugg naa ci bu ñu mayee sang mais sang day wàcc damay def su may dem woona da gis ni sang bi di wàccee wàccee su may tuur ndox da ngay gis sang sang bi ni ni muy ni muy wàccee boo dee hôpital bu la gars may poste deux euh, deux semaines da ngay da ngay commencé di yow doo doo sax doo moytu ndax deret deret deret moo yor nit nit nekkati waaw jàngee naa ci loolu. ban écurie nga nekkoon. écurie Lamsaar gi yàlla nekkoon écurie Lamsaar écurie Caaroy Géej fa laa jàngee bëre. kan nga mujjee bëre. ñoom isaapu yi kee bu njëkk bëre. Karadoole laa mujjee bëre jour combat Modou Lo Gris Bordeaux waa bëre SSL la maa Karadoole. maa Karadoole. waaw man la yàlla may ndam jour boobu. yaa daan Karadoole. man la yàlla may ndam maa bëre SSL ba. nga feebar feebar dab la ci biir làmb est-ce que waa làmb taxaw na la. waa làmb waa làmb lancé naa ma bokk ci làmb gars yi ay message lancé nañu lancé nañu waa làmb mais après sa message bi ma doon faj affaire yi ñoom ñu ba affaire yi xaw a yàgg andima bi di ba jeexal dañ ne ma réew saa sa sa benn médecin daf ma feer bi. nekkul feer boo xamante ni bu la yàlla dimbalee nga mën a ji mooy mooy feer ndax feebaru da ngay annulé te saa yi analyse analyse dafa yi da ngay def hôpital gis nga bu la yàlla taxawul analyse day ser mën nga mën nañu naa analyse yoo ay cent mille yëpp da nga koo da nga koo doon da ngay fay hôpital fi ngay nekk yëpp da ngay tax waaw pour fay. léegi nga wax lan ñi lay sitaan pour nu mën laa dimbali ndax sonn nga. non actuellement fer dafa yàgg ndax fer bu lu tollu 9 ans 10 ans nga nga nga xamante ne ay ay ay euh, sab médecin bi ki ma doon jàppale dem na bu turfe mais dafa am na garab yu may joxe woon xamante bu jeexee feeg depuis 10 ans ko jël heure bu jeexee moom laay jël ndax mooy mooy xaw a xeex xeex xeex xeex sinon boo boo ko boo toogee ñaari fan ñetti fan doo doo lekkati li bëggoon. li ma bëggoon bëggoon feer bi yàgg na te euh, toogoon naa si télé yi évité woon nañ ma mais boo xoolee léegi jamono ni muy doxee télé yi gars yi ba léegi seen i connexion lay yor seen i lay yor ci la ñuy xoolee yu bëri boo toogee si télé yi nii pour nga gis ñu lay ñu lay xaw a jàppale day xaw a jafe waaw léegi ñu bëri boo xoolee jamono ni may gis ne muy doxee ñu bëri léegi si si lay lay xoolee affaire waaw. loo bëggoon ñu jàppale la nga faju wala lan nga bëggoon. non jàpp yi mooy loolu ndax ndax dëgg yàlla affaire bi bi bi bi mu attaqué dëgg dëgg dëgg am na sa mel xarit moom ko ñu koy assi la jëloon na décision jël na décision ba léegi analyse yi li wallaahi li mu fere si man dèjà billaahi tey su ma ko lim tey mën naa ne bu ma tey deux deux millions wala un million cinq man na ko mais faire ba boo xamante ni. soo mënee euh, gars yi jàppale ko mu jéem a euh, euh, fexe fexe génn ndax ndax dalay dalay dalay daaneel dalay daaneel waaw. mais soo mënee faju fii tam baax na parce que génn tam yombul parce que jëlee malaat Sénégal yóbbu ko Europe yombul nga faju fii. yombul mais tamit li may gën a ñaan du sama sama sama sama mais mais feebar feebar la te ku ne xam na ne aussi feebar neexul tey jii su ma su ma dee lekk sax su ma dee lekk soo dee dee boobu manqué dëgg. suba lay lekk day mel ni kaan day mel ni day mel ni kaan laay lekk doo ma lekk li fi mu toll nii yàlla sere depuis un mois li yi di lekk du ma du ma ndax ay fonde ay yooyu ngay mën di lekk ndax mooy tax euh, nga sa làmmiñ mën ko mën ko nangu sinon ay ceeb ak yooyu doo ko mën lekk ndax ndax ndax deret deret bi ngay bi ngay manqué bi ngay manqué la bi ngay manqué léegi nga wax lan euh, jaamu yàlla yi ñu mën laa taxaw ndax sonn ko jaamu yàlla kay saa yi wax dëgg moom ku ci ku ci mënta jàpp rek ku ci mënta jàpp rek ku ci mënta jàpp lu ñu ma mën a jàppale dajale ma euh, gën a jël traitement yi ndax ndax xool naa ni euh, hôpital waa waa ndax fa laa doon fayoo CNT moo da rek université mais yàlla def na ni sama benn docteur waxoon tani bi feebar attaqué moom daanaka doomu yi doon jël sax moom moo ko moom moo ko poursuivre actuellement nii hôpital Dalal Jàmm laay dem maa ngi toppatoo rendez-vous yi mais problème bi mooy dama doon xaw a négliger rendez-vous yi mais nag lu ko waral mooy mooy quoi. d'accord léegi nga wax lan mbëru mbëru mbëru lamsaar yi comme la écurie lamsaar nga nekkoon mbëru jàmm gën mbëru lamsaar yi. ma dégg nga la mbëru lamsaar yi am mbëru jàmm gën ñoom am na fu ñu jaar am na luñ ci lu ñu waxoon sama dëgg diggante diggante ak ñoom mais loolu ñi si ñi dafa dañ ñi sa jàpp mooy ñoom super étoile ah non su su la bi bi nga doog a yëg yëguloon sax mais dafa dem mais la lañ lañ ko booy bi sa booy bi teneegul ba léegi mais loolu mën na ku mel ni Matar Gueye ak ñoom fëgg la ah Matar Gueye ñoom fëgg la yi ñooñu wax dëgg yàlla bi affaire bi attaqué jàppal nañ ma ci ay ay ay ay ay ay xaalis ci laa doon jëlee analyse yi ma doon fajo fajo mais mais mais dool mais Matar gi dool maa ngi koy sant bu baax a baax ndax a wax waaw jërëjëf kon tey li fi à grosso ndooy laxas la di mbër bu doon bëre nekkoon ci làmb ji yàlla def moom feebar feebar bi dab ko nag tey ñu ko jëlee fii ci arrêt Diegsaw bi ci kaw tali bi parce que dafay da ko attaqué sonal ko loolu di gërëm Super Étoile di wax ni ko Dakar ba social bi defee rek nañ def ni moom ci écran bi lu waaye yéene may ko lu waaye jàpp yéen jàppale ko loo bëgg a waxaat. waaw dafa am ñoo xamante ne ku mel ne tey papa Serigne Niang borom Antracom kooku maa ngi koy lancer message borom Antracom man xam naa ko baax ay doom maa ngi doon feesal waaw bëgg na bëgg naa moom mu ja euh, mu jàpp ci ay doom dañuy ma bu ñu déggee dinañ ci lancer message bëgg naa doom. sa tur dëggantaan nan la. Ndo Ndoy Laxas Laxas. te ci nekk. sama kanam ne Ndoye laa sama numéro téléphone 78 171 21 40. sa tur bi nekk sa carte d'identité la ban tur la. Ndoye Ndoye Niang. Ndoye Niang mais du Ndoye Laxas. non non sa sa Ndoye Laxas sur surnom la. Ndoye Niang moo nekk sa carte d'identité. moo nekk sama sama sama sama carte d'identité. Ndoye Niang nga tudd. Ndoye Niang moo moo nekk moo nekk sama sama tur après laa dugg si làmb ji sama bopp ma nekkoon buuse doon liggéey di débiteur yi yàlla def ma dugg ci làmb ji. trésor bopp Ndoye jërëjëf bokk yi kon lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz Social ci micro bi Fadal mi ngeen tàmbali gis la cadre bi Seydou laa ci àndal Ndoye Laxas lañ doon jël fii ci arrêt Diacksao bi Super Étoile ñu ngi lay nuyu di nuyu képp ku jàpp social bi dinañ def numéro lu waaye yéen a jàppale ko ci jërë ngeen jëf yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf